waaw ah, sama waa ji moom kii moom patron dëggantaan la saa yoo ma ñëwee ci manifestation bu fekk ko fii. ñun sëpp dafa doon ko jëmuñ ko dara yow lañ jox réew mi dañuy naan nag mboolem li fi dee ci ay bakkan yow yaay responsable yow président Macky Sall yow yaay responsable te nag nga xam ne Sénégal situation yi nga ko dugal tey mosu fi am te yaakaaruñ ko woon kilifa diine wax ak yow nga bañ ñëpp wax ak yow nga bañ lii dafa ñaaw ci am dëkk lay dénk ne la na nga bàyyi ci yàlla yàlla wax na ci alquran ne inna allaha laa yahdi kaydal xaa'iniina man yàlla du ma jubal fi xam kuy waru te da ngaa war askanu Sénégal ndax lañ diggante woon ak yow bokkut ak li nga ñu fayee lañ diggante woon ak yow Macky Sall bokkut ak li nga ñu fayee dañoo ànd ak yow di xeex di xeex di xeex di xeex notaire di xeex injustice ba nga ñu may la benn mandat nga ñàkk deuxième mandat nga dugal ñu ci situation yi tey li fi yàqu ci alal bari mais li ñuy gën a métti yaa ko def yow Macky Sall. moo ko def de ndax lii rëbëtu jarab Sénégal suñ kilifa diine xeex nañ ba pay duñ la ko noteel Macky Sall duñ la jëlal dictature duñ la jëlal injustice te duñ la ko tubaab yi moom ñu mukk sëñ tubaab ba muy dem ci géej gi da doon xeex pour tubaab yi bañoon na. def na ko. ak doomu naan bi ak doomu xeex na ba jàmm ak Sénégal ay El Hadj Ibrahima xeex na ba Nigéria fu ne xeex nañ ko. mais yow mais yow mais yow nga dikk taxaw fi ñëw delloo ak ay jàmm tubaab. du sotti de liberté provisoire bi ay liberté provisoire bi nag dañoo bëgg nga xam yem yow ci nga may ñu Ousmane Sonko tranquillement may ko nga bàyyi bàyyi dossier bi teg ko ci suuf boo ko déglu lu ma liberté provisoire lu ma cee fekk ndax duñu bàyyi Ousmane Sonko nga di ko di ko conditionné naa ko waxal ak bàyyi déedéet da war a def waaw ça va lu bëri yaa waay ça va naa def ca ne la dinaa wi ça va ak ñi daam loo doomi sëñ Modou Lo Ngabou yaa ngi ko téye yaa ngi téye Bada Ndiaye ñooñu ñëpp dañoo bëgg nga bàyyi leen immédiatement sans condition te nag te nag nga respecté suñu kilifa diine yi laa bu li ma gën a naqari gën maa jooy loolu du ma la du ma la ko baal barke alquran muy sëñ Mountakha Mbacké moom la ñu am ci yaakaar sëñ la bàyyi dañ ko bañ ma la ko baal billahi barke Serigne Abdoulaye du ma la ko baal billahi waaw yéen a ko déggandoo Macky Sall gaay Sénégal